waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. baaxee ñu tur bi. waaw man maa ngi tudd oustaz Mouhamadou Moustapha Ndiaye euh, jóge mbuur euh, dafa mel ni yow lay dégg ngay def euh, résumé li xew fee ca Palestine ci ay panel yu bare bare bare bare lan moo sabab loolu ku baax. lan mooy sa. lan moo sabab loolu. sax bu ko defee ñun ñooy oustaz Mouhamadou Moustapha Ndiaye Mbour dëgg la ñun ñooy taxawee loolu ñuy tudde résumé. ñu koy tuddee talxiis euh, boo xam ne dañ koy def bis bu jot euh, depuis 7 octobre ba tey euh, démb la am ñaar téeméeri fan ak juróom juróom fukk wala boo juróom-ñett fukk 280 jours loolu nag li tax ñu koy def du dara lu dul am yëg-yëg ni jullit ñi benn xeet lañ jullit ñi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa kon ni ko suñ boroom jàngale wa anna hazihi ummatukum ummatan waaxida ni lii benn xeet képp ngeen te man maay seen borom kon na ngeen ma jaamu kon euh, ñun ci loolu rek moo tax ñuy dox ci loolu ñuy dox euh, te it ñooñu ñuy rey foofu ñun dañ jàpp ni kuñ fa dagg tànkam suñu tànk lañ dagg kuñ fa tuur bëtam suñu bët lañu tuur kuñ fa jël doomam suñu doom lañ jël kuñ fa jël jabaram suñu jabar lañ jël kon loolu moo tax ñun nag ñu daal di jël xool daal ni ah xëy na mënuñu dem ànd ak ñoom xeex waaye xëy na it amuñu alal juñ leen jox ñu jënd koy arme waaye nag yàlla may nañu ci wàllu journalisme loo xam ne war nañ ci mën a jariñ suñu mbokk yooyu ci génne seen i jafe-jafe waaye tamit ci génne seen i ndam ndax nag wax dëgg yàlla ñoo ngi fay def ay jaloore yu rëy rëy rëy euh, ñun dañuy toog ba ay vingt une heures vingt deux heures vingt trois heures rek gis ay éléments yoo xam ne mais fooy jaar ba dajalee xeetu éléments yooyu waaw mooy li ma sànq rek mooy euh, wax dëgg yàlla yàgg nañ di yëngatu ci wàllu réseau sociaux yi euh, di liggéey ci rajo ñu ngi Mbour FM TV foofu ci Mbour waaw kon yooyu yëpp yombalal nañu ñu mën a dugg ci yenn barab yi foo xam ne dinañ fa mën a fekk ay xibaar yu wóor te wér euh, te wit dañ xibaar yoo xam ne dañ koy am ci jamono ji muy xewee boo xoolee tey ji Facebook euh, boo fa duggee da nga fay fekk ay xibaar yoo xam ne ay en direct lay doon ak euh, tamit boo duggee ci yenn site yi ci Telegram bi ci WhatsApp yi da ngay gis xaawa ma nga xam ne ñoo nekk ca biir xeer ya ñoo nekk ca biir suuf sa ñooy jàmmaarloog noonu Euh, jullit ña da ngay gis ne ñoom it ña nga yor seen i matériel ña nga yor seen i réseaux sociaux ñoom it di tas la fay xew ci jamono ji muy xew ñu nag yooyu la ñuy fexe ba jot ko incha allah séddalewaat ko euh, suñu mbokk jullit yi rawatina ñi nga xam ne dégguñu arab ñun ñu firil leen ko ci wolof. gis nañ bu njëkk ay CNN ay BBC ay France Inter ak yooyu. ay France 24 ñooñu doon doon xibaar yi si ëpp mu doon ay manipulation yoo xam ne jullit ñi fi ñu nekk dañuy gañe nañ ñu ndeka demeewul noonu lan moo sabab ne kat wax nga ko ci wàllu réseaux sociaux yi mais loolu nekk na loo xam ne vraiment euh, kon dañu gëm ne depuis Saddam seen ba suñu joon yàlla tey dañ ñu doon fena wallaay euh, non loolu sax bokk na ci li gën a tax ñun ñu taxawee mbir mi euh, def talxiis bi mu nekk lu sax saa su 22h jotee 23h ba minuit du ma tëdd mukk lu dul ne dinaa fexe ba xam la fa xew lépp ma tënkal ko mbokk jullit yi ba nga xam ne képp kuy tëdd ci di nelaw di nga xam tey lan la suñu mbokk ya nekk Palestine ñoom it di nelawee. bu ko defee loolu euh, tamit dafa nekk benn euh, liggéey boo xam ne dañ ciy contrer euh, li ñuy tuddee al ishaat muy yi nga xam dañ ko doon tas te du doon dëgg moo xam ci télé tubaab yi la ci tele américain yi ci télé français yi ñu ko doon tas ci jullit ñi nga xam ne dañuy tuddee seen bopp ay intellectuel mais dégguñu arab te ña nga xam ne xew-xew yi fa ñoom arab la ñuy wax. kon bu fekkee dégguñu arab loolu amul werante ni ñoom duñu mën a xam li xew moo tax tey fii may waxee ak yow ba Gambie ba Mauritanie euh, fu ci nekk dañ may woo di ma wax ni ma wax dëgg yàlla ñu ngi jot xibaar yi te ñoom bu dul woon lii ñuy def duñu comprendre dëgg dëgg dëgg li xew kon loolu li muy wane mooy yàgg nañ leen di nax euh, te it bëri na lu ñuy wane même ba ci àdduna bi def ko ci bopp jullit ñi ci doole joo xam dañ koy wan ne Israël daf ko am ci wàllu technologie ci wàllu Euh, armement ci yeneen a geneen gis nañ ni yooyu yëpp ndekete dara du ci woon dëgg ndax xeex bi gis nañ ba mu tàmbalee 7 octobre léegi euh, Hamas ma nga fa nekk di leen résister di leen def loo xam ne euh, day wane ne sa Hamas ñoo leen gën a maîtriser technologie bi day wane ne sa Hamas moo leen gën a jàng guerre ñoo leen gën a respecter normes yi ñuy guerre. léegi damay toog ne xanaa kii du sonn. a ah, déet <laughs> yow ñun dañuy sonne parce que inna allaha stara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla dafa jënd euh, bakkenu jullit ñi jënd seen alal doog leen a jox aljana kon ñun bakken yi yor ak alal yi ñu yor ak lépp ñun moomuñu ci dara yàlla moo moom lépp kon suñu mbokk jullit yooyu buñ ko soxlaa lépp luñ ca soxla ñoom ñoo ko moom kon euh, ndegam ay mbokk jullit ñoo nekk fële ñoom duñu yendal duñu fanaanal tey ji am na ci dëkk yoo xam ne toog nañ neuf mois lekk dugg fa neuf mois ndox dugg fa euh, neuf mois amuñu courant kon bu fekkee suñ mbokku jullit yi ñoom ñooy dund loolu ñun nan la ñuy sonne yow yaa ngi ci say njaboot yaa ngi ci say kër gis nga tey fii ñu toog rek yaa ngi gis ventilo yi yaa ngi gis fu nekk euh, kon ñun euh, amuñu amuñu leen lañ def lii mooy li gën a tuuti lu jullit mën a defal mbokku jullitam mooy bis bu jot muy xam ci lan la nekk ndax yeneen bi nee na yàlla rëbb na koo xam ne dafay fanaan suur mbokkam xiif te ñoom ñaar ñu bokk tëdd ci benn quartier. sant ngërëm na la. Euh, jërëjëf ñuy gërëm nag sa euh, Samagal euh, TV ndax sama Samagal SN ñoom wax dëgg yàlla bokk nañ ci ñi gën a jàpp ci liggéey bi ci tas ko ndax li may wax sànq ni mu ngi tas fu bëri ci Afrique rawatina dëkk yi dégg olof loolu yéen bokk na ci liggéey boo leen ci def ak Oustaz Malick Ba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax baax jërëjëf salaamaaleykum